asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñoo leen di siyaara bu baax ah siyaar ci nisfu saabaan bi di leen ci baaxee li nga xamante ne mooy ñaan bi ñu warloo ci bés bi sàkku nañ ci ci bës bi ci guddi nisfu saabaan bi nii ah, ku ko mën nga jàng ci ñett yaasin yaasin bu njëkk bi boo jàngee yaasin bi ba noppi nga sàkk nga ñaan si gudd fan yaasin bi ci tegu teguwaat mooy ñaareel bi eh, nga ñaan si yàlla musal la ci balaa eh, yaasin bi nga xamante ne mooy ñetteel bi mooy bi mujj eh, nga ñaan si li nga xamante ne mooy xéwal gu yaatoo yaatu ba doo soxlawu ci doomu aadama yi dara am na ñaan nag bu ci toftalu danañ leen ko yónnee bu ko defee ngeen mën koo jàllale ci télé yeeg yëpp rek jërë ngeen jëf